dalal tuuti ak rek ci côté li nga xamante mooy rap bi mm. actuellement Sénégal bëri na rappeur mm. mun naa ne ay euh, musique euh, hip hop mu ngi dox fi nga xamante ne mooy Sénégal bu baax a baax parce que léegi jeunes yi koo gis label yi commencé nañoo bari si te bu njëkk amoon na loo xamante ne gars yi ñu am moyen euh, ñàkk moyen pour

yaakaar naa amul keneen ku mën a taxawaat di ko jox ndigal naan ko yóbbul kii yóbbul kaa mhm. dëgg la musique la mais mënoon nañ koo defee ci benn façon bu nekk nañ ay rappeurs yu am talent yu mën rap mhm. dëgg yàlla booloo ñu dégg wolof ba pare def mën li ñuy def mhm. loolu moom kenn du leen ko bañal te doo leen dégg it ñuy saaga doo leen dégg ñuy wax wax ju bon xëy na son bi nag lu mëntoon ñàkk la ñoom ñu def ko parce que seen yëg la ñu def ko xëy na ñoom ni ñu ko mawti xamul ñu nga yóbbu daal wax dëgg yàlla man jàpp wax jooju mënoon na ñàkk daal mënoon nañ ko defee ci beneen façon parce que mawti kenn lay déglu muy si borom subhanahu wa moo koy jox ndigal amul keneen ku mais nag musique la dëgg la mais tee nag chaque jour ñuy xool li ñuy def parce que am lu ñu war suñu diggante ak suñu ñu war suñu diggante borom parce que boo ne ko mawti xalal li nga yóbbu te yow mi koy wax xalal li nga yóbbu yow ci ñi war a dem nga bokk yoon kon nag kooku booy wax ak moom daa war am noo war a waxee ak moom waaw ñu ngi leen di béggee bu baax daal mais di leen ñaan beneen yoon ñu moytu sanru sanwun ñu mel noonu quoi dëgg la waaw ñu ñu tegu ci accès bañ tege woon rek parce que ay jàmbaar lañ ay ndaanaan booy ñu ngi innové hmm. mën na hip hop bi jamono ñu ko jiyee gars yi ndax gars ñu ngi innové mais booy binduñu quoi binduñu hmm. booy ay saaga classe écotrip la ñuy def te loolu amul njëriñ dëgg la saaga classe écotrip hmm. écotrip mooy tagg sa bopp classe bi gis nga ko ay saagay ne saaga kële kële saaga la pour ngeen saagante ngeen am bës mm-hmm. gars yi tas ko ci net bi ci réseaux sociaux yi ku ne naan diw diw ñooy classe pour après nga mën a am bës mm-hmm. parce que loolu amul sens dañoo war a jàngee wuti xam-xam mm-hmm. rap du ay caaxaan parce que musique mbedd la ci mbedd mi la jugee gars yi cangat ko defar ko ba mu baax ba mën a dugg ci kër yi ba paa yeeg mën koo déglu ndax que bu njëkk boo daan rab dañuy wax kii bandi la tuxkatu yàmba la nan ko du sàngara la bu ñu demee ba war nañoo xam ne rapport am na njariñ kon musique bi dafa nekk musique boo xam ne musique bu respect la musique loo xamante ne day sa askan mais buñu demee nekk musique boo xamante ne par xasante la ak saagante amatul njëriñ booy nag a jàngi wuti xam-xam parce que nag li ndañ bi pour ngay wax pour nga pour nga ngay mën a wax nit ñi ni mën ko dégg foog nga mën ko maîtriser booy ci bëri jànguñu rab xew na diw na ko am na bës xaaral man tam ma jéem koo def commencé di fréquenter studio yi taqale sa benn quinze mille dem defar sa cent ñëw génne léegi pour nga commencé siiw pour am gel yooyu te loolu taxut a jug musique bi musique bi da nga koy def pour conscientiser sa public pour conscientiser sa askan pour wax ak sa askan di leen dénoncer seen ay jafe-jafe ak seen ay bëgg-bëgg pour état bi mën ko dégg pour am lu mu ci jàngatee xam ne kat lii rapport bi wax loolu la askan bi jàng moo tax rapport bi ñëw jot leen pour mu ko dégg. loolu mooy concept hip hop. mais pas ay parce que classe ci hip hop la bokk. mais classe bii ñuy def du pour Sénégal ndax ñun Sénégal xamuñu saagante. Mm. xamuñu waxante lu ñaaw xamuñu waxante lu bon. barki démb Ndiaye gis nga Balla Gaye ak Modou Lo bëri nañ fi combat bu tàng. Modou Lo papaam gaañu Balla Gaye dem seetu ko mm-hmm. muy lu rafet mm-hmm. Balla Gaye tam papaam gaañu Modou Lo dem seetu ko muy lu rafet gis nga yooyu dañ cee ni ñëpp foog nañ ne ay ennemi lañ duñu ay ennemi ay adversaire lañ rafet te muy lu rafet loo xam ne yàlla leen yàlla jàppale man dama ko rafetlu carrément nit ñi ci loolu lañ war a dox mm-hmm. tey ñi ci doon wax ñi ci doon ñaaw anamu tey man gis naa fi benn cas boo xamante mooy combat Modou Lo bi Balla bi passé waa ji da cee xeex bañ jam ko ci benn supporter Modou Lo imagine loolu tey ñoom ñoom bëri nañ ba pare ñu ngi encaissé seen xaalis diggante nañ ci jàmm yéen nga nekk fa di xeex di werante ju ñàkk fayda bañ jam la ci paak mais tey ana lu ko fi jar yàlla dumbale ndax su ko deewul après dem nañ tribunal mun a jégal naa gars yi ñu bàyyi leen mu sedd nañ xam ne ñii duñ ay noon lamb pour liggéey la benn saan moo leen boole buñ bëree jeex na ku nekk dem sa yoon tey ñu ngi nii bokk benn association bokk benn mouvement di xeexal lamb pour lamb jëm ca kanam mhm. tey jii ana paa fi nekkoon jóge nañ fi ñoom xale ñoo fi def ëllëg ñoom ñooy nekk paa yi xale yi ñoom ñooy màgg yi chaque jour lii ay message la yoo xam Sénégal a mhm. nit ñi dañuy bokk géem tey jii man ak rapport bii bu ñu classante mën nañoo bañ a nekk ay noonu ñu teg ko ci cadre hip hop mhm. nga classe ma à cause de hip hop mhm. mais da nga may classe a cause de dama la contre wala dama la bañ du noonu lépp dafa war a rafet kon bala ngay mooloo lii ñu rafet na ci ñëpp jàngatee ne adduna nii la war a demee làmb moo leen boole woon jeex na jeex na tey ñi nii bokk ndey bokk baay gis nga ay ëmb seen ñëpp ñëw jaale si affaire bi rafet loolu mooy àdduna yàlla na yàlla jàppale ñoom ñëpp affaire yi jëm ci kanam mu rafet dëgg la